reconnaissance de Dieu. C'est une deuxième. Ah, L'étape intermédiaire, vous avez euh, au niveau des agences, le traitement tertiaire. C'est moins clair. Effectivement, voilà, c'est vrai. Donc, depuis le début de l'indépendance, nous avons une disposition au niveau On a dit des puisqu'il avec les gens. le pré-traitement. Ce n'est pas le pré-traitement, mais euh, le traitement primaire en quelque sorte. C'est pourquoi ici, on a une piste d'Archimède. de diamètre 400. Maintenant, avec quelques légumes dérisoires au gauche. Et maintenant, à travers ça, vous voyez les eaux ici, ils sont tellement sages. ñëw nañ fii ci ci station d'épuration bi nga xam ne moo nekk ci kër Ayib Ndoye muy station épuration bu mag man maa ngi koy doog gis tey wax dëgg yàlla muy station boo xam ne investissement yu mag a mag lañ fi def euh, ci presque huit milliards de de francs CFA ci jamono yooyu euh, muy liggéey boo xam ne bii boolem ndox muy jóge ci biir Thiès muy ndox mi ñuy jëfandikoo fii lay ñëw ñu segg ko traité ko. toppatoo ko dindi dindi li ci li war a li war dañ yëpp def ko def ci li ci war ba mu mucc ayib génnee ndox mi jébal ko baykat yi muy nag liggéey bu am solo euh, yéen ñëpp gis ngeen ko euh, jàpp naa ni loolu am na solo ci ci ci ci ci population yi en tout cas maa ngi lancé appel ñëpp ñu ñu gën koo gën a gën a gën a toppatoo équipement yi gën koo gën koo jittee ba mu ba mu gën a mucc ayib ndax lii xaalis la. te lu njëriñ la amal askan yi gis ngeen ni ñi ngi fiy joxe ndox ñi ngi fiy jo ñi ngi fiy joxe bu nga xam ne day nekk engrais ñu mën ko def ci tool yi kon njëriñ la boo xam ne bii dafa dugg ci programme ONAS bi nga xam ni dafay développer ce qu'on appelle les sous les nouveaux sous-produits muy engrais muy ndox muy énergie ak leneen loo xam ne mi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi jëm ci ci ci xeet yooyu ndox mi nag xamal nañ ma ni ma boobu ba tey dañuy naxante ak suñu mbokku béykat yi ah ñu ngi koy jëfandikoo waaye nag euh, faw ñu toog waxtaan ndax euh, joxe ndox gratuitement mënta mënta wéy kon faw ñu toog suñu biir ñu waxtaan xool nu mu gën a fa ci ñoom ak nu mu gën a jàppande ci ñoom ñu mën a fay ONAS bu ko defee sëldu yooyu giir danag nen maa ngi profité nag ci occasion bi euh, remercier sama équipe technique yi ma fekk fii ci ci Thiès félicité bu baax a baax ci liggéey bi mucc ayib bi ñuy def Euh, notamment le chef de service régional ak mboolem équipe yi liggéeyal ñëpp chef les chefs de de service les chefs de section ñi fi nekk ñëpp agents yi ouvrier yi maa leen di félicité bu baax a baax ndax nit ñi boo ñëwul fekk leen fi ñuy liggéey doo ko xam te ku ne xam na ne liggéey ci lu mel nii lu jafe la ndax li fi nekk ci wàllu xeet ak ci lu lu demee noonu neexut a liggéey waaye ñi ngi góorlu di ci di ci daan seen doole kon maa ngi leen di félicité di leen encouragé bu baax a baax di leen wax ni ils ont tout mon tout mon